waaw kon ñu jublu ci yéenekaay yi delu ci tagge ki nga xamanteni modi ciebu jeun ceebu jën doomu pendaak mbay ji mo faatu sank ci bëccëg aram kaani ca daaru xeeñ faatu yët ca daaru forox na pobar ca daaru wex nday patas ca patar soxna laaj ca laajee nday mati dakar ca daaru safar mor ñam bi mod li ngom ibra supame isa géej ca daaru ubale tafa karot awa nawe kumba joxote serigne soble di serigne ciki faatu bas basante ca mbasante marema bisaab ca mbisaa been seyna bu jimbo anta netetu ndox ca lak de guerre quartier robinet yasin diwlim ca sonakos ca njaareem kinne xorom ca ca ganjol ngot ci geejju mbur aja boy ca tefesu ndar fa la rof di mag wala ci ki faatu nday xujja gas ca bagas gas don say ndakaru musa mat di ci ki faatu nday xadi kerin di yaay ki faatu mbokki siya mbokki parfumé mbokki thailand mbokki signaar mbokki shaman obama ño am rak tis di leen tàgge sen papa sen mag seen nijaay yum pan ciebu jot ciebu jot faatu na dembu ci waxtu midi ci dekk ban nan dank len dal mak saro sa ña ngi koy nango ci dekk ban nan sakami mi ñuy nan yalla ndox mi tegg ci kom yalla set ci kom ci mi faatu bañ mu koy sakami mi nako na ngërëm bi jaaxi seexu naa put barke wan naasu